bismillahi yen muriti Sénégal maay marsial fi genn góoru seydi rijal bismillahi yen muriti Sénégal maay marsial fi genn góoru seydi rijal daarul xaraam war na muriti daaro moo yàgga war ci waaru war na sëriñ tuuba waraale cerno war bàcci ante ceeba jaamu war nu war na sëriñ gaawaan te war borom saam war na sëriñ aafiya rakam jarna saam ورنا خليفة الخديم المستوى ورفل الله مبكي له waaye la yóbbu woon génnu góoru Sénégal du mën a bàyyi Cheikh rijaal